su ngeen gisee jotaay bi di ngeen xam ne làmb la parce que Manga 2 ancien roi des arènes wala sax am na ñu ngeen xam ne nañ ba tey mooy roi des arènes ndax ni ko gañoon ba tey kenn gañewu ko noonu kon ñu koy nuyu mu làng ak directeur général bu Leewtoo production Pape Thialis Faye moom tamit yaakaar naa làmb am na lu mu ci marqué tey nag ñu ñaar ñu ngi nii toog jàkkaarloo yéen président maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay waa Leewtoo production am mbégte lool di toog avec le président. capitaliste ndax soo gisee ma ñëw toog fii dafa am teranga bu ñu ko war a delloo ci turu ancienne gloire yi yëpp de la lutte sénégalaise ndax Pape Thialis dafa ñëw ci làmb ji am ay jéego lu mu ci def te jox ancien mbër yi yëpp cër kon cër boobu maa nga doon su defee absence deux ans dans l'arène Adrien Senghor te ñu xam ne foofu la lu foofu la jàngee bëre ba nekk le roi des arènes je pense que Pape Thialis la ñuy jël mu patronné bés boobu. bés boobu dañ ko jox cër mu partenaire ko ànd ak ak suñu démb yi ànd ak l'honorable député Moussa Sané bu nekk Grand Yoff donc loolu moo waral suma teewaay tey pour wax Pape Thialis ne lu muy liggéey ci làmb képp ku nekk ancienne gloire rek gis nañ ko cër bi ñuy jox aussi gis nañ ko loolu moo waral ñu partenaire ko bés boobu bés bi nag lu 14 avril la ci arène Adrien Senghor non Pape Thialis moo liggéey loolu ci boppam parce que soo ñëwee ci mbir gis ne am na ay nit yu fi nekkoon yàkkuñ ko dañ ko rafetal lu mel comme Double Less ñu mel comme Mbaye ñu mel comme Manga 2 ñu mel comme Faga Souleymane Dia bu nekk waalo di wàcc si di ñëw yaakaar naa ne cër boobu Pape Thialis moo ko liggéey ndax mënoon na ñëw yor xaalisam euh, di organiser ay lamb sans rendre compte ci ñooñu doon xam ne ñoo rafetal làmb ba ñu mën a egsi fii donc nag collaboration bi moo ko liggéey nekk xale bu yaru ñoom ñëpp avoué comme par exemple kii suñu nit la dañ ko war a delloo njukkal. ci ak yar mu liggéey bu mu liggéey ak développement bi dafa am ñoo xam ne day ñëw ci làmb pour jëriñoo làmb mais jëriñu làmb jëriñu euh, jëriñoo làmb nag ak jëriñ làmb bokkul donc moom Pape Thialis dafa ñëw pour jiriñ làmb xam ne lii suñu sport national la demuñ ko jéegaane fenn ñu ñoo ko moomal suñu bopp kon nag daf ci war a jàpp béy ci waaram te di mu ngi koy def. non lu ma la mun a wax xam naa ne dina am nouveauté yu bari parce que joolaa yi woo nañ ma mu ne dañu ngémb si ngémbu joolaa dooy xaar yàlla parce que joolaa yi bari nañu euh, xaar yàlla Grand Yoff dañuy dox si séeréer yi ne su ngeen ñëwee ñun ñoo ñu ko fekk parce que fii ñun ñoo ko moom ñun séeréer kon nag loolu mooy naxa xam naa ne Pape Thialis dina nekk arbitre moom mooy xam daal li mos na nekk fii am fii ou bien li mosul am fii <laughs> waaw ci loolu kañ jotol waa suy demee ba final dama demande le CNG mu jox ko sifflet bi coup d'envoi bi non comme bi yi nu ma la ko waxee sànq rek mën nañ ko daable ci deux mille cinq cent deux mille de toute façon yàlla lu muy def nag moo xam donc euh, xam nga xam nga sa président directeur léeg-léeg yaramam day tàng def loo xam ne kenn feegoowu ko foofu waaw donc loolu nañ ko sant yàlla rek waaw di wax démonstration bi lu ñuy def am na ay lutteurs yoo xam ne ay lutteurs Joola la comme Double Less numéro 2 dafa wax ne day ngemb si day xëccoo aaren bi ak joolaa yi ak séeréer yi séeréer yi nekkoon fii ñu ñoo ko moom kon animation bi daal xam naa ne dina bari te dañu gis folklore parce que lutte traditionnelle dafa ànd ak folklore te nit ci loolu la soxla dañu fàtte ne lut du xeex rek lutte tey boolaate ay dëkk lutte tey defar àdduna donc je pense que la lutte traditionnelle euh, day defar Sénégal day defar mbokk yi diggante joolaa séeréer tukulóor olof tout et consort donc loolu lépp dafa am solo donc dans ce sens là su nekk te ku xam Thialis aussi xam ne c'est un fédérateur kon fédérateur su fekkee ne loolu di nga koy liggéey ci sport bi donc moom lañu war a teg ci kanam. léegi xam nga ku ko woy jarul ma di la ko wax. yaa ko waxal sa bopp waxuma la ko de. waaw ñu ngi lay fay Babacar di nuyu sa équipe bi yëpp. léegi mu jël bésu ancien gloire ñu waaw Babacar d'abord ñu ngi leen nuyu di nuyu sa équipe bi di nuyu président màngo nee nga ancien gloire mais ancien champion la wax parce que ñoom ay champion la ñu. donc ñoom ñoo bu làmb yeggee fii grâce grâce ak ñoom ñoo tax yàmb toll fii. donc mu nekk suñu idole nekk koo xam ne yàgg na ci làmb ñu koy nekk xale jëkk a seetaan donc bu demee ba moom di tëgg làmb ak ñu mu àndal je pense que bu ñu patronné lii duñ def lu dul am ci mbégte parce que dem toog ba un champion mel ni Manga nga xam ne ñëpp ñëpp ñu ngi naan tey jii ba léegi moom mooy champion bi moom mooy yore couronne bi donc kooku bu la parrainé dara rek je pense que lu ñu ci mën a def rek incha allah dinañ ko def pour mu réussir parce que euh, mënu wax sama parce que pour man dafa nekk lu rëy ci man waaw. bon lamb lamb moom xam nga nit lépp loo ne jamono boo nekk rek da nga koy dund. donc làmb dañ dañ ci nekk donc dañ ciy dund donc dund bi mooy lan mooy xam ki nekk nga teg ko place am parce que làmb même boo ñëwee ñi fa ancien gloire yeeg champion yi fa nekk ku nekk rek am na place boo xam da nga ko far a teg yëg ko xam nga xam ci oyof si seen suuf yëg ko parce que ñu ñoo mujjee ñëw donc mënuñu fa def lenn loo xam ne tey jii nit dafa ko fa loolu ñu mën di mën mooy ñëw pour jàng dañuy nekk seen suuf di jàng xëy na comportement boobu la parce que loolu la ñuy yaree loolu lañ loolu la ñu xam donc. Euh, waaw le 14 moom. non non 14 moom comme ñëpp rek comme d'habitude on le fait avec tout le monde comme ni ñu defee ak Samb journée Samb bi on va la même chose parce que lamb ñu ñoo ko war dundal. donc boo amee journée bu mel nii da nga si war a jàpp sa mbokk jàpp si say xarit si am di jàpp ñëpp siy jàpp te incha allah dinañ si jàpp ba journée bi réussir incha allah. léegi tam ñu fi ah. waaw. Euh, waaw mais ñi ça va ngi si daal ñu ngi si affiche yi bon li des bëreetul peut être d'ici bi di jeex incha allah donc ñu kale affiche yëpp si kàttanu yàlla. non non trois affiches rek ba quatre affiches waaw <laughs> incha allah waaw ba non saison ren saison ren bi lañ koy tëgg incha allah waaw. nañ xaar avant le huit incha allah dinañ taxawal combat bi avant semaine bi jeex waaw réglage ndaw moo des rek si kàttanu yàlla. non dama kontaan ci question boobu bi nga posé président parce que président moom dafa digg ancienne gloire yi benn combat boo xam ne combat bu rëy la doon pour ñoom seen journée donc sa question boobu dama ci kontaan te ñu ngi koy xaar à bras jaajëf gërëm amateurs yi sant amateurs yi di làkk tuuti séeréer parce que ça fait partie de mes habitudes o fogole séeréer mimmaga do o ɓiynun oto numtidu no aren adrien sengor no anda ye a jega ka xupna o xiid meen ndax nu anda ye maga a wasayawas njom laaw ke dap una nda gidmo yaaro xe teen xooya nun nak le 14 avril nun fopet manum o sereer a refna a gara fuudi di na manum a refna a gara di njom na parce que xarit in oxa andoona yee a bug a bug njom a bug sereer o ten nagalkama a i njom ne te ref Pape Thialis na lew to nu ngi'aye Chegofen nafya adabida in Bonfimla aleta Bondangan aleta Diofior kon nag o kiin o nafya ken fopet a buga o fog seereer a buga njom seereer a ñaay layanuun ee aussi fook i njoola we Moussa Sané député den yitam ana gar parce que ana gar o ten ref Grand Yoff a anda seereer ndefma anda jola ndefma a jalida o fogole nga ndeer seereer we fi jola kon nag drapeau fana Moussa Sané o ten jegun a xooya jola we a xooya seereer we o fogole seereer a njar nu mbiteena faak fa fedena faak rek nu continuer nen ro a ci en di di di leen di di sant di santaat encore ancien champion yi fi nekk mi ñoom Manga ñoom Dobales ñoom Faga ñoom suñuy papa la ñu donc suñu papala ñu nekk nit ñu ni ñu baax ñi ñoo xam ne ñu xam làmb donc lamb war leen delloo njukkal te incha allah man en tant que maa ngi si làmb yi naa si taxaw pour que ñoom aussi li ñu def si làmb yëpp làmb war na leen si delloo njukkal delloo njukkal donc di di di bég aussi ak di rafetlu journée bu mu ñu tuddee te incha allah dinañ si jàpp bu baax ak samay famille sama mbokk samay xarit sama am jàmm sama wala ñi may bokk di liggéey ñëpp dinañ si taxaw incha allah si kàttanu yàlla.